jërëjëf CEDEAO bi nga xam ne moo ëmb fukki réew ak juróom euh, te mu am institution bu ñuy wax parlement de la CEDEAO man ci laa bokk Souleymane Ndoye ku ñuy wax Ibrahima Baba sal Woré Sarr euh, Adama Sylla ak le député Aimé Assine ñu ñoo fa nekkal Sénégal Euh, CEDEAO ni muy parlement CEDEAO ni muy liggéeyee mooy saa su ne day yëble ay délégation ci réew yi nga xam ne am na fa ay kuréel yu bokk CEDEAO nekk fa pour ñun ñu ye dem fa saytu seen liggéey fu mu toll xool ni mu demee xool seen jafe-jafeñ xool li nga xam ne ni moom moo waral ñu sos CEDEAO ak li nga xam ne nii ay politique publique la yoo xam dañ ko dénk ay commissaires yu nekk ci commission CEDEAO niñ koy liggéeyee ci dëkk yooyu ci réew yooyu bi nga xamee ne CEDEAO sos na GIABA nga xam ne day xeex lu jëm ci blanchiment de l'argent sale wala ci capitaux yi wala trafic de drogue ak yu mel noonu bi ñu ko sosee rek la ko Sénégal jox euh, siège fii mooy fii ñu nekk nii euh, noonu itam la ko Sénégal defee bi nga xamee ne sos nañu centre communautaire bu CEDEAO bi nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci toppatoo ak ak yelleefi jigéen ñi comme góor ñi waaye lépp loo xam day fexe pour yemale jigéen ak góor waaye itam dimbali jigéen ñi ak ndaw ñi pour ñu am ay sañ-sañ mën a entreprendre muy autonomisation des femmes ci kaw loolu bi ñu fi ñëwee ñeenti fan a ngi nii ñi nekk fii di saytu di càmbar seen liggéey xool seen jafe-jafeñ xool li ñu yaakaar ci parlement bi ak li ñu yaakaar ci commission bi xam nga ne Sénégal aussi mu jur Séné euh, africaine bu CEDEAO bi nga xam ne mooy docteur Fatou Sow Sarr muy commissaire u CEDEAO bi toppatoo lu jëm ci wàllu genre lu jëm ci wàllu ndaw ñi lu jëm ci wàllu social ak humanitaire bi ñu paree waxtaan ak ñoom ñu dem seeti madame le ministre euh, docteur Fatou Diané Guèye euh, waxtaan ak moom ak direction yu mu àndal yëpp noonu lañ demee itam siyaare ndokkel président Assane Sall mi nga xam ne bi mu yëgee ne am na commission am na mission CEDEAO buy ñëw jël na mataayam yëpp ci wàllu parlement Sénégal pour dimbali leen gungale leen euh, euh, yóbbal la seen liggéey tey nag ñu ngi sottal liggéey bi dañu daje fii suma mbokk parlementaires yi euh, te ku dëkk Sierra Leone Libéria Edwin Snow Junior moom moo jiite delegation bi dégg ngeen ko gërëm na autorité Sénégal gërëm parlement Sénégal gërëm nawleem yi nekk Sénégal waaye itam rafetlu li ñu fi gis ci liggéey jàpp nañu ne GIABA ak centre genre soxla nañu ñu yokkal leen ay jumtukaay ak ay moyens waaye rafetlu nañu it ni li état wu Sénégal d'accord ci jàpp ne siège bi ñeen leen joxoon xat na xajatuñ ci dafa yokk te bu ñu bëgg a def CEDEAO des peuples il faut que ñu joxe ay moyens ci ñi ñuy liggéeyloo waaye itam xam ngeen ne jamono bii affaire terrorisme affaire menace terroriste affaire trafic yi dafa doy waar xam ngeen li may bëgg wax. dañu war a dooleel également GIABA loolu moo tax def nañ ay recommandations yoo xam ne danañ ko danañ ko saytu danañ ko cambar bu ñu demee Winneba ci plénière Winneba ci ci Nigéria fii ak weeru dee dinañu adopté rapport bi bu ñu ko adopté nag day nekk loo xam ne dañ koy jëfee ma leeral ne état wu Sénégal ni mu joxee woon ñii siège euh, sàkku nañ ci moom mu jox leen espace suuf ci jam ñaajo ñoom am nañ xaalis bi nga xam ne ni dañ tabax siège bu mucc ayib bu ànd ak jamono bu mën a dalal ñëpp boo xam ne ni institution CEDEAO yëpp dinañ ci nekk loolu daal moo tukkee ci réunion bi. waaw loolu danañ ko def mais li nga xam ne moo gën a am solo mooy ñun parlementaire CEDEAO dañuy soññi réew yi bokk CEDEAO yëpp ngir ñi def prélèvement communautaire yi ñu respecté ko ndax xaalis bii doxal CEDEAO d' abord ci lempoy waa CEDEAO la jee ko réew yëpp ci bokk su ñuy fay seen euh, prélèvement communautaire day yombalal liggéeyu. parlement CEDEAO yombalal liggéeyu commission CEDEAO yombalal liggéeyu centre développement genre parce que centre développement genre dafa war a am léegi désormais ci pays bu ne mu am ne fa pour dimbali jigéen ci autonomisation pour dimbali xale yu jigéen ñi ci bourse d'excellence pour dimbali xale yi ak jigéen ñi ci jël en charge xeex yoo xam ne nii mooy fistule wala yenn maladie yoo xam ne dafa sonnal jigéen ñi loolu moo tax ñu bëgg gannaaw bu ñu xamee ne population CEDEAO yëpp jigéen ñi ñoo ëpp te ci biir jigéen ñi xale yu jigéen ñi ñoo ëpp bu ñu bëggee réew mi jëm kanam bu ñu bëggee CEDEAO jëm kanam réew yi ko seq dem kanam il faut que ñu yokk ay moyens ak jumtukaay c'est centre de développement de genre fii nii man nag rafetlu naa ko kontaan naa ci ndax man maa jiite réseau des parlementaires de la CEDEAO bii toppatoo mbiru yemale jigéen ak góor waaye itam bii toppale toppatoo lu jëm ci naka la ñuy capacité ak autonomiser jigéen ñi ngir mën a am sécurité alimentaire ak souveraineté alimentaire